aa ah, ngi dembaak wali mataja ตาย ñii dañoo gis nii dañoo gis boo xamante ni si biir yàggatul dara. kii ñu ngi leen di nuyu amati kontaan ak mbégte jàkkaarloo waat ak fii ci wasaare lamb mbokk yi ñu ngi fay tay ci yëmbal nekk ci open press boo yëmbal démb xeeru ngor moo la ko defaloon xeeru ngor numéro 2 tay ñu ngi fii ci yëmbal waaye xale bi nga xamante ne mooy boo yëmbal bi mu dugg see da ngay gis sëñ Basiru ànd naak ñëpp waaye yëmbal gépp ànd ak moom sëñ bi mu ngi ànd ak ay xaritam mu ngi ànd ak ay am di jàmmam mu ngi ànd ak ay mbokkam moom Boy Yeumbeul tey open press mu ngi noonu dugg si na sol benn yére bu nga xamante ni ñu ngi ci def photo Serigne Babacar Sy mu sol li nga xamante ni mooy ensemble bu bleu longue manche bu weex takk morceau bu weex ci bopp ba takk benn gàllaaj ci li nga xamante ni mooy baat ba moom Boy Yeumbeul gis nga ko noonu ci biir open press am gis nga xaritam am di jàmmam ay mbokkam ñëpp ànd ko làmb noonu la lamb noonu yëmbal ak géejawaay wala yëmbal ak fi nga xamante ni mooy ngor bu ñuy bëre doon na mu ngi noonu di def ay mise en train boo yëmbale ngi noonu gis nga sëñ Bas boo gisee mbooloo boo gisee lii muy def mbokk yi boo yëmbale ngi noonu fii rek ci Wassare Lamb sànni na ay almet almet yu bari wala sànni supporter mi supporter bi mooy yëmbal yi kenn mënatu leen a téye ndax lan seen doob mooy bëre tey lamb ji am na fu mu ko jaral lamb ji am na fum ko jëmee hey petit waaye kenn du petit baat bi moom boo yëmbal jox nañ ko ndox mu ngi takk ci loxo bi benn morceau bu xonq nee na ay supporteram jóg xanaa da di nelaw Boy Yeumbeul a ngi noonu sëñ Bas kooku mooy Modou Mbenn di doom. waaw loolu lañ mooy suñu yéene di ko ñaanal yàlla yàlla may ko ndam ci kàttan suñu borom jom jaa ngi fi ñoom Aliou Seye Senior xam ne ñoo ko ay magam di ay di ay di ay conseil am nekk ci làmp ji bu yàgg tey macha allah loolu mu amee li day dañuy sant yàlla bu baax ci yëmbal waaw. doom yi xam nga xale yi. waaw. mbooloo mu toll nii. waaw suuru lamb. jouru lamb ja loolu la wane rek day wane rek mu maanaam day yëmbal day wane tey jii ñi taxaw ñi maanaam mbëri tey xale yi xam tey ñooy yëngu ci wàllu lamb tey lim nañ lim nañ teeral parce que comme ni ko waxee rek lamb ji ñëwagul li open press rek la te li incha allah bi euh, lancement bi la ca bu daa yàlla film mooy dax ci kàttan su borom. Alioune waaw Aliou Seye kii Aliou Seye moo ko yar rakkam la léppam la kon day wanante rek yëmbal lépp tey mbër yëmbal yi ànd nekk benn bu xew la ñu ñëw teewal la jàppal la ci kattan yàlla tey mooy suñu teewaay fii tey li ñu bëgg nag ñëw lancé yëmbal bu kenn des dañu bëgg dimanche ci kattanu yàlla le jour combat bi le 21 pardon dañu bëgg mooy que ne samedi le 21 li ñu mooy incha allah bi kattanu yàlla mooy yëmbal yëpp kenn dem fe stade dem ba yëmbal daan ñibbi si andi ñu yàpp ci kàddu yàlla ñu li ma li ko préparé dañ ko dañ ko ko kàddu yàlla boo yëmbal dama ne xale bu yaru xale bu gëm boppam jël kon loolu rek dafa na am ne tey fu mu dem ambassadeur la boo xam comme ni ko ko jiitu woon Alcé Junior ma ci yokk mooy kii ñun jooy ñu kenn kii moo ñu fi nekkal yëmbal ñun moom lañ gëm kii ñun moom lañ gëm dañ koy ñaanal rek dañ koy ñaanal li mu bëgg moo ko xam yàlla na ko suñu borom defal ci barke yonent bi ñun ko jooñu Malick Gakou ñun kii mooy suñu Malick Gakou ba barke sëñ Babacar Si yàlla na ko yàlla jàppale bu jàppale xale yi di ñaanal sama rakk boo yëmbal yàlla ko suñu borom defal ndam ci barke yonent bi jaajëf waaw jaajëf jaajëf jaajëf ginnaaw bi ñu santee yàlla di julli ci yonent bu tedd bi di sant sama ñaari waajur bu wér di sant sama ñaari waajur bu wér si yàlla yàlla yokki leeram su barkeem di sant sama sëriñu bopp maam Asim Seydi Jëli di wax ne jërëjëfe Ndoye Sy jërëjëfe Ndoye Sy Ndoye Sy yàlla na fi yàgg te waaw boo yëmbal dégg nañ li nga wax ak say ñaale ak say dëkkandoo li ñuy njëkkee mooy xeeru ngor nee na combat bi lépp ci mystique nga ko teg ba fu ñu leen woo doo ñëw foo teg parce que presse moo ñëw di ñu dégg di ñu seetaan kon yaakaar naa tey buñ fiy wax dañuy wax li nga xam ne mooy lu logique dañu signé contrat ak promoteur ñun dañu am ay kilifa parce que mënu ma imaginer boo yëmbal dëkk yëmbal xeeru ngor dëkk ngor. ñu woo ma signature Ngor pourquoi may dem man Ngor fi ñoom xeeru Ngor di entraîner ma fay defi ci signature dama am kilifa te combat bi buñ jàppee ne ay sorxo sorxo wala mystique mooy gagné combat bi ñu ngi nax seen waaw ñu ne. ñu may ni tuuti ñu ànd ak dal waaye Ngor ñoo ñu yóbbante démb ñu ne bu waa yëmbal teelul jóg bu ñëwee ci bit nañu seetaanee combat bi te xeeru Ngor nee na. bu dee xeex mbaa bëre loo ci indi benn di nga ci fekk fukk boo leen xeexee mu duma la nga daanu boo leen bëree la jàpp fu dul karaw làmb ji jeex. yëmbal ma ne ñun yëmbal lañ dëkk fii lañ juddoo fii lañ yaroo yaakaar naa fii nit mënu fi juddoo yaroo fi di doon tàppet xeeru woon bu bëggoon combat bi biir këram ma fekk ji waaye li ma wax sànq rek combat bi lu mu ko bëgg benn foofu foofu mbëggeelam yam ci combat man foofu laa tàmbale dégg naa ko na mu tax ay rajoom di wax waaye combat bi wax gañewu ko waaye yëmbal dañ ma muy yónni yàkkamti ma te taxawaalu waruma combat bi sama combat la ci kàttanu borom bi laa wax bu xeexee ma duma ko bu bëree ma jàpp ko daan ko incha allah lan ngay wax say jege ci bis boobu ci non violence ta nga janook caméra yi wax ak yow ñu ne nga dajale say supporters ci fair play parce que nee nañu ki tëgg làmb ji xale la ni yéen bii mooy premier journée bi mu ñëwee xelem demul ci yàq ku dul xeeru ngor te nee nañu foo dem dellu fa wala su bëree nit ñi mën leen a fekk si ci yéen lay jóge xeeru ngor ci préparation mystiquement physiquement fair yaakaar naa ne ku def fair play rek ne waa yëmbal te yàlla dogal na ne boo yëmbal yàlla da ko booleeg ay xale yoo xam ne xamuñu violence ndax yaree wuñ leen ci xamala lañ xam wóolu seen mbër gëm ko te yaakaar ko te xam nañ ne ci biir géew bi avec boo yëmbal rek léppay yomb ci kàttanu borom bi li may wax nag damay lancer message samay supporters ak ay supporters Xeeru Ngor man ak Xeeru Ngor ñooy rayante ci biir géew bi supporters lan lañ leen sant ñu sant ba rafet taxaw ci kaw neexal ci kaw ma neexal ci suuf ci kàttanu borom bi loolu laay woo samay fans di ko woo ay fans Xeeru Ngor incha allahu rabbi dégg naa ko mu ne dafay feesal stade na bàyyi ba jot ci place yu mën a feesal boo yëmbal dafa am ñu nekk ci ginnaaw gis nga ko léegi mu ànd ak Modou Mbène Diop yaakaar naa doo tiit ci mobilisation ànd ak Moussa Guissé doo tiit ci mobilisation ànd ak nag rawatina nag waa diaspora bi ñu jëndal ma ay tike yu bëri su ma nee waa diaspora bi jarul may lim lim naa ñëpp di sant waa yëmbal waa bursuwaay jaay préeg yu boo yëmbali waa def bës yu boo yëmbal waa waa Paris waa Paris sant waa bool bi maa ngi leen di sant mafia jaay préeg bi maa ngi leen sant bu baax a baax a baax gis naa li ñuy ci boo yëmbal bu boo yëmbal amee combat du ñu nelaw guddi du ñu nelaw bëccëg te Malal Sakho fils de Doubalès moom sama ginnaaw kon yaakaar naa ne combat bii nii pe Serigne Mbaye ngemb waaye waaye leneen la ñuy wax waaye waa dinañ ñëw ci loolu sama mbokku presse bi fi nekk dafa bari waaw xamu ñun maaguñu bëre yaakaar naa gudd jaaxaluñu rëy jaaxaluñu ndaama jaaxaluñu ndax dañu mbabat ku mbabat yaakaar naa ne boo dajek xeeru ngor soxol day sedd ndax bu ñuy wax ne an xeeru ngor moo ma sut lanoos ñëpp nag bàkkoo nañ ko ci xeex bi waaye ci kàttanu borom bi ba moom benn sens la ci am daanu benn sens rek la ci am ci combat bi daaw à part sens boobu amaatu ci dara du xeex du bëre. foo teg loolu. sama gëm-gëm laa ko teg ak li ma liggéey. sa premier grand combat est-ce que mën nañoo xaar kii di boo yëmbal mu def leneen lu raw lu waaw wax benn slogan ak boo yëmbal doo xam luy xew. yaakaar naa ne grand combat mu doon sama premier grand combat. incha allahu rabi dinañ ci wane waat beneen facette beneen boo yëmbal dina ñëwaat ci combat bi incha allah. xeeru ngor laa la wax de ci kàttanu borom bi bu xeexee ma duma ko ci kàttanu borom bi xam nga ñëpp ñoo ngi koy favoriser na moom moon moo ma daak xeex yaa yaakaar naa ne yoon ni yàggul samedi yaagatul moo ma daak xeex wala daak ma xeex samedi incha allahu rabi maak moom ak arbitre bi rek ñooy des ci biir géew bi bi dee moo ma daak xeex nit ñi yéen di ci teg seen bët loolu jarul commentaire. ñu bàyyi la nga tàggoo. waaw di sant nag presse bi fi teew ñëpp yaakaar naa xale bu ndaw woote ngeen bàyyi seen yitte yëpp ñëw yaakaar naa awma seen fay bépp presse bu fi teew maa ngi lay sant di ñaan seen site yi yàlla na doon tele yaakaar naa sama père père Gaston tamit bàyyi déplacement am waa ngeemu naa xam nga loolu aw ma seen fay gis naa taxawaayam ci man gis naa yéene bi ci man mbër yëpp nag la faral faral faralul boo yëmbal kase ma koy remercier di remercier sama jigéen ma Madia moom tamit dafa ma jàppale ci fànn bépp di sant nag samay kilifa yoo xam ne dañ may ngeem bu di yëkkati xaalis di ma ko jox ku ci mel ne Alsane Saw aw ma fayam père Babacar Fall aw ma fayam Babacar Dia borom jaxay aw ma fayam père Serigne aw ma fayam yaakaar naa di sant képp koo xam ne yaa ngi jàppale boo yëmbal aw ma sa fay gis naa seen taxawaay gis naa seen li ñuy teg ci man ay Issa moom tamit taalibe baay bi aw ma fayam moo fay sama grand sama booy yi nga xam ne tey saa yu ma amee combat dootuñ nelaw dootuñ guddeel dootuñ bëcëgël yaakaar naa maa ngi leen di sant di sant nag Modou Mbène li ma defal dafa rëy yaakaar naa nit ku saa ku am xat-xat la waaye bu bàyyee dara pour def dara ndax boo yëmbal kon aw ma fayam lenn rek laa ko deseel mooy indil ko ndam bi ci kàttanu borom bi ta loolu ragaluñu loolu di sant ndoy si bu baax a baax baax a baax waa diaspora bi mention spéciale dañ maa jëndal ay ticket yu bëri aw ma seen fay sama grand Malal Sakho aw ma fayam sama grand sama père père Serigne aw ma fayam père Mansour sama grand Mansour moo ma yóbbu ba Gambie yoreel ma lépp manqué wu ma fa dara sama grand El Hadj Gueye aw ma fayam waaye yëmbal mbooloo nag moom yaakaar naa fii tey ma defaluma leen lu tax tey ñuy sonn ci lii ci Boy Yeumbeul ku ci mel ne suñu coach Gilles Ousmane bu màgg daan yaakaar naa Babacar Diallo bàyyi yiteem yëpp garga tudd naa nag mbër yi fi nekk ñëpp bu ma limee rek damay juum xam nga sama coach box maa ngi koy sant bu baax a baax a baax di leen sant bu baax a baax di wax ne samedi incha allahu rabbi ñu dem jëli ji ndam bi indi ko waa Yeumbeul ñu bég ragaluñ lool incha allahu rabbi